bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhanahu wa taala ñi nga xam ne lan làmmiñ woo xam ak woo xamut wu ne sant nañ ko ca sunu boroom moom nga xam ne ñi ngi koy jaamoo fu ne ci kaw suuf si te moom daal moo ko yeyoo amul kenn kuñ koy nirooleel amul kum nirool ci dara ci lenn yii ñuy wax yépp sori na ko lool di way baayam di way nijaayam di way bàjjanam di way tàntaam subhanahu wa taala gannaaw bu ñu sante suñu borom moomu ñu ngi julli ci ñi ngi ñi ngi julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo wax ne toog fooy dollikoo ci koy dollikoo mi ngi mel ne toog fu ñuy jaaye gët laaj ko lañ buñ la xeeñalut it xet ga dana ban say bakkan te boo fa jógee it ku taseeg yow dana xam ne fa nga jóge laaj ko lañ a nga fa mbokk yi ñu bàyyi xel walla nu baal xel bis boo xam ne soleetu dara yàlla nañ ak jàmm tam yeex bis ba mooy bis bi suñu boroom di woo jaamam yépp ñu daje ñépp dekkiwaat ci ñaani sayidina ibrahima alayhi salaam bokk na ca walla wala tuxzini yawma yubaasuuna bis ba nit ñi di dekk yàlla boo ma gàcceel ñu ne ko ban bis la mooy mu ne bis bi nga xam ne bari ay doom bii nga xam ne ci ay jamono moo doonoon barke ku bare waan ay doom kenn du ko yàpp mu ne loolu amu fa njariñ waaye ku bari alal ci jamono ji ñu toll it bari na ñoo xam ne daañu la baal xel lu la waaye di wax it mën na la ko nëbb nee na loolu amu fa njariñ bis booba ak njaboot amu fa njariñ alal amu fa njariñ lu fa am njariñ mooy xool bu set wecc bu mucc ci bokkaale yàlla di sikk sàkka ba xam kenn ki ñuy wax ne moom la waaw walla déet kum ne cim xelam amagut xalbun salim sakkantuma ku naan ndax dekki am na waaw walla déet bis booba dañuy jegeel aljanna lool muy xeeñ xeet yiñ bëgg mu xeeñ ñu ñëpp daf cay xeeñ di gilli jege lool waaye sa war a nekk nële di buur di dal loolu yow mën a xam ci suñ jamono tey ñu dana romb ak kër la ko fay xeeñ du bëgg a romb jàll bu dee ba xaaraan di am dëgg-dëgg kooka day wër kër yooyu yëf yi di gillee xamagul gum ca doon waaye genn ku nekk dana fa dugg jubale ca waañ wa nuyoo ba xam lu ñuy def lan la xet ga moo ko woo wa uslifati jannatu lil muttaqin waaye gaynde menn wala rab yi nga xam ne dañuy fàddaate ku ko indi ci dëkk bi bañ di ko xoolit benn mu dugal ko ci ak kaaf gu dëgër goo xam du mën a rëcc léeg-léeg mu buur bëgg wutal si nit ñi weñ nga dox digganteem ak ñoom wala ñu yew ko càllale gu gu dijji goo xam ne fañ koy takk du mën a buddi garab ga wala du mën a buddi lañ ko tënk lañ ko tënk léeg mu buur daal defe ne ci àll bi la nekk daa war a fàdd yanañ ci yàlla musal wa burizatil jaximu lil gaawin ab laaj dana jib ana ñi nga xam ne dañ doon jaamu lu dul yàlla jaamu lu dul yàlla baat bu rëy la waaye lu yomb def la yàlla na ci yàlla musal képp koo xam ne daa am xéewal lu mu doon wut te mënu koo am bu ne wut alhamdulillah waaye leneen dugg na ci jaamu lu dul yàlla ndax yàlla may maye mooy xañe a euh, Cheikh Mamadou Muntaxa li mu koy wax bari na yàlla miy def di dindi baat boobu daf koy jëfandikoo lu bari yàlla mii def di dindi laaj ba nag mooy ana ña taxoon ngeen di def te du yàlla mii yàllay laaj di xool leen leen ba xam dañ tal seen bopp sakkantu mag di tal keneen fa kuubu kiibu fiiha ñu nargañ leen nargañ mooy koo xam ne dañ ko daaneele nëfee naay teg ca keneen teg ca keneen teg ca keneen xanaa ka féete suuf bu dee xiiboon dama sonn lool fa kubukibu fiha hum wal gaawuun mooy ku dem ba yëgatut na yàlla kenn la yëgatut ne yàlla mooy joxe yëgatut na yàlla mooy xañe dem na daal ba tëgg mbërëgam euh, tëgg mbaggam mu fees dell mu yëkkatiku mu toll na ko neex mu ne moom moo fi nekk am ñu ne ko yaa ne mu ne cell moo junuudu iblis ajmaun fa kubkibu fiha hum walgaawuuna wa junuudu wa junuudu iblis ajmaun tudd naa léegi ñu tegale dëpp leen fa keneen dëpp ci kaw keneen dëpp ci kaw muy jol joli ñoom ñépp seen ñor ñor la ñuy wax ca suuf tallahi in kunna la fi dalaalin mubin qaalu wa hum fiha yaxtasimuun tallaahi in kunna la fi dalalin mubin nekk ci réer gu métti lañ nekkoon lu ko waral mooy id nu sawi nu sawikum bi rabbil alamin yée waa ji nga xam ne dañ ko doon ne yaa man yaa sañ mu ne cell buñ ma buñ nar gañee ab xiiboon teg ko ca teg ca keneen teg ca keneen ñu ne xanaa ki diw mu ne aha ñoo nga ne ko coono bi yaa ñu ko indi ndax id nu sawikum bi rabbil alamin dañ la doon teg fa yàlla teg la fee nga ne cell ne xiim wa ma adallana illa almujrimun fama lana min shafiin wala sadiqin xamim foofa nit nit soxla na fa yat soxla na fa qalbun salim mooy xol bu set wicc ci sikki sàkka sikki sàkka kenn yàlla doon kenn di sikki sàkka ndax dekki am na waaw wala déet teg na ca bëtam waaye soxlaas na fa kuy ñëw ne bàyyi leen kee bàyyi leen kee bàyyi leen kee benn muy waaju baax rek joo xam ne xam na ne ñee ay jullit lañu woon sonn nañ te yàlla sañ loo ne ko ko ka des di xarit bu jàll bu yàlla rus na yàlla tin ma ci sama xarit bi waaye ñoom lañuy jàmbat mooy amuñ fa yett yi lenn amuñ fa ndax la leen teg ca tegale boobee mooy dañoo amatul xalbun salim amuñu saalixin shafia amuñu sadiqun xamim yàlla nañu ci yàlla musal yonent bi sallallahu alayhi ci am njàngaleem nee na qalbun salim ku ne moo koy wutal boppam saa buñ ko ne yàlla nee na na ne tekk ba xam luñ cay teg su dee luñ koy teree mu daal di bàyyi fa saasa bu ca nekkee su dee luñ koy digal mu ne ca fa saasa bu ca nekk gutoon te muy lu ñuy tere mu bañ koo geesooti ba faw nee na ku bëgg ànd ak waajoo xam ne nag day taxaw joxoñ joxoñ joxoñ joxoñ ñu bàyyi ñooña ñëpp loola fii la koy tàmbalee daf lay wan ni la yàlla kenn rekk la moo santaane ba noppi nag jiitu ca du ne dem na ma dikk dana ay ci lañu dem buñ téyee moom mu dox dem jëfandikoo la sëriñ Abdou Lahad waxoon ne ku ne ku dem ma dem ku demul ma dem bu fekkee fa nga jëm aw yoon la soo geesoo mën nga gis aw nit wala nga dab aw nit wala aw nit dab la kon nee na a ngi ni yoo xam ne kuy ànd ak nit na ko seet ba ca jëkk mooy borom borom xel mu lëw maanaam xel mu gudd te rafet bokk yi xel mu gudd sa ñaaw ku ànd ak boroom seytaane nga àndal xel mu gudd te rafet waaye xel mu gàtt te ñaawit ku ànd ak moom ab dof ngay àndal saa su nekk luy fii rek kon kuy tànn àndandoo na tànn àndandoo joo xam ne xel mu mat mu gudd la yor te rafet ndax kat boroom xel mu gàtt te ñaaw ab dof la dof mënta ràññee lu ñu war a bëgg ak lu ñu war a bëgg te sax du yàgg ak kenn ñaari fan ñett ngeen téerante téey ngeen téerante téere baat nga ne waxumoon lii mu ne lu ci sama yoon kon ànd ak boroomu xel mu gàtt te ñaaw gaaf la ku ne nag na xool boppam na xooli àndandoom ñaareel ba mooy na tànn boroom diine ku teg tànkam ci diine ci wax ak ci jëf ak ci pas-pas ndax ku amut diine moom noonu boppam la sax sakkantuma muy wàllu jàngoro ji keneen noonu boppam la ndax seytaane ko dugg inna seytaana lakum aduwan fattaxidu aduwan innama yadcu xisbahu li yakunu min ashaabi sair yanuñ ca lu kon ku am diine joo xam ne njistalu ca bëggut ku ko ca naw bëggut ku ko ci yéem boo ko xoolee ba gisal ko sa bopp dee fa faral di bari tànk waaye ñetteel ba mooy boroom jikko ju rafet tudd am xel léegi waaye jikko nit dana ko rafetle te fekk amul xel mu gudd amul xel mu gàtt waaye noonu la mel foo ko gis nag du tooñ du fayu du tooñ du fayu lu waay def mu ne amul solo ni ko ko di wax bàyyi mu sedd te kat kum war a wax lu baax koo mën a doon soo ko koy wax nga talaata ko sax dana ko def waaye kum gis ngay defaf safaane koo mën a doon du la ko jëw dana dem ba agsi caw na li ngay def du noona loo ko ca def baax na du tax mu bàyyi su ëllëgee day ñëwaat ndax jikkoom rafet waaye ñeenteel ba mooy koo xam ne saa su nekk dangay xam ne li muy siq ak yow dana la ca wan ne la lum la yéene yàlla na ca jiitu moom kenn du yéene boppam ab safaan bat bu ndaw la te am solo lool lu ma la yéene yàlla naa ca jiitu mooy koo xam ne kii lim yéene boppam la la yéene kooka nag day mat léeg-léeg nga dem ca moom ne ko xam naa li ngay def moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ida ahaba ahadukum axaahu fal yuallimhu iyaah mu di ko wax nii waaye na ko jëflanteeg moom delloo ko weccatam kon kenn munta ñàkk ñi muy àndal lim bu bare ba wéru ca koo wax ma ne sama xarita sama xarita sama xarita munta wér njàng njàngale bu jëkk ma daanañ ko jàngale ci koo xam ne daa ñëw ci daa tànn ñett ci ñi muy àndal ñëw ci kenn kii ne ko moom kat daa am la ko dal mu ne ko lu mu mu ne ko daa ray nit léegi ma nga ne sedd guddi tax di caddi caddi te yow dong laa am ci dëkk bi mu bëggoon nga wax ma nu may def mu ne ko ay man de gën a wu ma ko sama yoon nekku ci bay boo nga daw de kenn ki ne ko gaawal gaawal dem jox sa bopp takk der yi bala ko nit ñi yëg di la rey kii ne ko génn lu dëkk bi kii da koo dem loo ba da ko yabal ca fa ñuy ñay jàpp ñu jàpp ko mu am jàmm foofu moom kenn du ko fekk di ko fa rey wala mbooloo mi du ñu ko fekk di ko rey bopp ku mujj ko ne ko ay ca nañ dem lu ca war ñu bokk ko def lu ñuy def boole ñu ko def loolu nag la jamono ji soxla koo xam ne loo mën a nekk mu nekk ca ak yow ñoo ñu mënu ñëw bari kon boog ki ngay jëkk tànn ci booy ànd ak moom mooy boroom xol bu set wicc ci sikk sàkk ci kenn ku yàlla ki xol bu set wicc ci sikk sàkk ba xam ëllëg daañu teew fa kanam suñu boroom waaw walla déet ba lu ko neex def ku am pastas boobu na nga ko teg nee waaye na nga wut ci nit ñi it koo xam ne mën na laa teg ci aw yoon woo xam ne bu ëllëgee moo lay dugal fa nga bëgg a dugg kooku moo tudd safiya kiiram mu nit fii la koy tàmbalee mi ngi mel ni dama bëgg a dem dëkk sàngam nit ànd ak yow ba fa garaas am nga paas déedéet am dugal la ci wata ba ca jëm jox la adresse boo wàccee ci dëkk ba numéro bii wala kayit bi taxi boo ko jox mu yóbbu la kooku soo demee ba àgg ci kër gëm la tatali moo la yóbbu waaye su la nee soo jëmee penku mu ne la oto yi jëm sawu ngay dugg ndax xamut penku sowu du dem doo dem da ngeen tase ji nag foo xam ne fa kubkibu fiiha hum wal gaawuun yàlla nañu ci yàlla musal yàlla yàlla musal ci ñàkk xalbun salim yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk saalihun shafia ku lay teg ci yoon yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk sadiqun xamim moom laa doon teg moom laa doon misaal léegi ki ne ko gannaaw dangaa rey nit nañ àndandoo lu ñuy def ñu def ñu ko ñun ñaar yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina